waaw ñoo indi sata waaw bu ci def bawal. mbëru bawal bawal yi. waaw Mbour Baol asalaamaaleykum. Badou Kër salaamaaleykum ginnaaw bi sant yàlla julli si yónent bi sang suñu waajur ñu ngi sant mboolem axlu ngeewul gépp gépp gépp ah si ni ñu jàppale suñu frère Siteu bu Bawol góor ak jigéen mag ak ndaw mboolem ku yeewoo ngeewul rek rawatina monsieur le maire Kébé Kabir Kébé Gadiaga ak waa gox ba yëpp waa. kon monsieur le maire bi jàpp na ci. monsieur jàpp na si saa jàpp na si baatin ak adjoint au ay population bari jàmm population Tumour Ndiaye àll. Kër Ma Diop mboolem ñëpp jàpp nañ si ñu ñaan yàlla si tëmb Bawol yàlla may ko ndam lu sedd guy lay nuyu waaw maa ngi lay delloo fay maa fan mbaru Bawol ah Bawol Bawol waaw waaw ci loo sant borom Touba bi mooy sa premier combat waaw mooy sama premier combat waaw loo lu ma ndam rek ndam rek laay nga war a xam nga ko waaw ah. waaw waaw ah. yaay mbëru Bawol yi mbaa mbëru Bawol moom tey ah, ndam rek. ndam rek lañ indi incha allah ñaan yàlla mu may ndam yàlla mi maye mu may ñu ndam waaw waaw. jërëjëf daf ñu kaay may sax. waaw. ki ngeen indi. adversaire bi muy bëreel xam na. adversaire bi lijjanti wuñ ko sax du ñu nag moom. day xaar. lijjanti woo leen adversaire. la dugg. waaw na xam ni Cambérène la dugg parcelle. waaw. maa ngi lay nuyu. maa ngi lay delloo siyaara booy yow booy kan. Boy Fouta. Boy Fouta. waaye. mbëru Fouta wala. waaw ah. mbëru réew mi la fépp la mais Fouta la. mais Fouta la. waaw. yow Haalpulaar. yummume baamum ci ballo mo jaraani deebeelo taanum jaltaaɓe gorko mo ɓokkee sama haane kacce dañcaal yooli kuma yakki yakki ye ma yaaɓal keeleele a nanata mi xool Fallou vraiment di ci am contentement rek avant tout di remercier le président la Macky Sall parce que tey bëri na tey président yu fi jaar amuñu lii ñu am ci moom ndax lii ñu am ci moom yombul ndax tey mënoon na dalal cinq lutteurs wala mu dalal quelques nit mais axlu làmb yëpp la dalal te axlu làmb nag kenn mënuta wax fii làmb fii sport Sénégal te doo wax làmb gis nañ ne dalal bi aussi ñëw na doléance yi xëj na ku nekk sa xel fi mu toll rek foofu ngay waxee duñ leen balaame ci dara mais jàpp naa ne tey jii nii audience boobu ñu am tey ci devant président la Macky Sall waroon nañ fa gën a focaliser wu ci ndaw ñi parce que làmb mënoo ko wax te doo wax ndaw. dem na benn moment boo xam ne gis nañ ñu bari ñu naan président Gora Ndoye yow yaa war a wax yow yaa war a wax te waxoo. waaw loolu li ko waral mooy c'est parce que gis nga làmb Fallou da nga ciy toll dox ko nga weesu ko ba ko ñun ay acteur la ñoo xam ñu ngi sur le terrain xam nañ li xew Fallou ñun dañuy génn dem di fréquenter xale yi di leen laaj seen jafe-jafe lan la gis nga arène nationale bi ngay gis ñuy saccager sièges ñun def nañ ci ay démarches. wàcc nañ sur le terrain dem seeti ji booy yi xamal leen ne làmb suñu sport national la arène bi président Lat Macky Sall tabaxu ko pour ay mag ñun jeunesse bi la ko tabaxal ku ci nekk tey war nga fa mën a ñëw for fi sa wërsëg nga dem bu ëllëgee keneen ñëw def noonu mais bu ngeen dee met damu chaise bu yàggee danañ tëj arène te buñ ko tëjee mbëri ngeen di lor ndax mbëri amuñu beneen métier bu loolu weesoo ñu dañu gis ne jeunesse bi fàllu moment benn toll ni dañu gis ne tey dëkk bi toll na foo xamante ni dafa jot président xam li xew te président nag wàccul sur le terrain xam li xew ñun ñi ñëw pale ñun ñoo ko waroon a wax li xew. est nekk am na lu xew ci biir làmb loo xam ne si ni bi ngeen demee bi ngeen demee pale loolu ba léegi jooytu woo leen ko président Macky Sall. mais bari na parce que tey exemple tey arène nationale bi rek fàllu arène nationale bi depuis combien d'années ñu ngi ñu ngi wax ne dañ ko war a utal directeur te loolu doléance boobu waroon a dugg ci nopp président mu xam ne arène nationale bi tabaxal nañ ñu ko mais amul mesure d'accompagnement société nationale yi nga xam ne nit ñi ñu ngi utiliser seen ay produits ñu nekk fii ci réew mi te nanguwu ñu jàppale làmb lan moo waral loolu bu dee violence bi taxoon tey jii ñu ñu daw mais violence bi ñun ñu ngi ciy dox ay jéego gis nañ ne wàññeeku na donte lépp dañul kon war nañu mën a ñëw jàppale waat jeunesse bi. ñoo ngi leen di siyaar bu baax a baax premier combat de la soirée dox ci ñaari xale yi nga xam si moom mooy seen premier combat. Siteu bu bawal ak usine technique bu bawal arbitre bi laaj na ñaari juge am ba xam pare nañu arbitre bi sifflé na ñaari mbër yee Cheikh bi jaan nañ ko waaye yow maye bu bawal mi moom luñ ko nii waaye Siteu bu bawal luñ ko nii oh mbaru Saalum Diop ba mbaru Saalum Diop baa ngay dem Siteu bu Bawol daan nañ daan nañ Siteu bu Bawol bu Bawol la ngay dem. maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. lu tax bëre bi gaaw. non ñii du ma seen morom dañ maa joxagul sama moroom ñii maa leen mën du ma seen morom. ñii maa leen mën du seen morom dañ ma jox samay moroom mu bëreeg ñoom. waa ñii du ma seen moroom nañ ma jox samay moroom ma bëreeg ñoom. ñan ñooy say morom. ñooy say morom. dañ ma jox ñoom Siteu bu Ngor. waaw non Siteu bu Ngor diis na si yow. non ñooñu ñooy samay morom si làmb ñu may boole nii du ma seen morom maa leen mën ñoom Papa Bali Bali ay ñoom Laurent Ndiawa ñooñu ñëpp ma leen jox ñu bëre ma ak ñoom. waaw boo gisee ni ma ko daane nga xam ñii du ma seen morom. waaw. pare rek ànd ak samay mbok parce que Serigne Bamba xam ne gan gi bu ma ko téyee du yàgg du të billaa wallaay waaw. dafa lamb dafa nekk suñu deret ñun bu fii di àll ba. billaahi duñ bàyyi fenn fenn dafa nekk suñu deret moo tax bu duggees duggee lamb rek suñu yaram day dañuy xaw a beneen lii billaahi. jërëjëf. aja ñoo far. <laughs> parce que ñun moom dañoo pare pour 23 juillet incha allah ñu ñëw dekkil lamb. ci tund jandeer parce que waa tundu jandeer ñoo war a ñëw wuy si làmb daal la le 23 juillet incha allah si diggante Ahmed dem Jam Thierry Baba Jaxal caatu ngéwél waaw hmm, bëgg nañ fi bu indiwaat daal beneen innovation bu bees moo tax ñuy teel a jël suñu matuwaay balaa muy gën a jege daal. Hmm. waaw loolu yow boo tëggee Baba Jaxal caatu ngéwél rek doy na. waaw Baba Jaxal caatu ngéwél. waaye ama dem jam ceer yi li ñuy wax ñambaas yàqul sër te cin moom booy togg dangay fexe mu saf sap ba ku mos dolli te dañoo bëgg bu ñu ñamalee waa àdduna suñu premier journée ñu xaar suñu deuxième journée. kilifa gi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sëñ Fallou maa ngi lay siyaar bu baax. doomu nday Ada Fass di sëriñam di ko jàppale ci kombaam ci loo ne. sant alhamdulilah waa Ada sama rakk la sama rakk la ñoo ngi nuyu ñëpp di leen siyaare di baalu ñëpp àq. di baal ñëpp àq nag di ñaan Sénégal jàmm ndax Sénégal jàmm rek a fi xaj yàlla na fi yàlla def jàmm. mais euh, problème yi ñuy dégg ci Ada Fass souvent mu bari lool mu doon xale boo xam ne espoiru làmb la mu boo doon xale boo xam koo yaakaar mais chaque jour souvent dañuy dégg ay problème ci Ada Fass ba problème bi mucc. waaw Ada xale la Ada xale la ah, dañuy ñaanal suñu borom lafal ko cat. ndax ñoo ngi sant yàlla bu baax aada xale la te aussi xale xalem ba léegi dañagul ci moom mais dañ koy ñaanal suñu borom coow yi mu nekk yëpp suñ borom génne ko te mu nekk li nga xam ne mooy gën ci moom tamit aussi. du ñàkk encadrement parce que yi muy def nii rek est-ce que du ñàkk encadrement bu baax moo tax yii di ko dal nii di ko dal. waaw mooy li ma la wax rek xam nga euh, li ñuy wax mooy cat moom bu baree ba bari day euh, coow bu bare ba bari mën naa sonal borom mooy li ma la wax te aussi xelu xale mi moo nekk ci moom ba léegi. mais xale bu dem bay ay millions kooku waaw mais ba léegi man na man sa jëmm mën naa bañ a nekk xale mais xel moom la ca nekkoon ba léegi loolu lay nekk moo day xale rek dañ koy ñaanal suñu borom li mu nekk ni suñu borom génne suñ bu génnee gars yi taxaw ko am na ñu ko taxaw dañuy ñaan ñooñu ñëpp takku rek jàppale ko bu baax a baax xam ne ndaw la quoi. rafetul ci lamb li rafetul ci làmb làmb lii baaxoowu ko oh. booy ñaan intervention rek a mën damay calmer booy yi ñaanal leen intervention parce que comme xaw ma lu xew ñaan intervention rek laa mën. kon mën parce que booy mu war a mën a dem euh, vraiment. yi li am nii lan la. waaw am jaaxal na ma parce que ñun ay ndaw ñu dëkk si banlieue bi xam nga di entraîné boobu ba léegi amuñu kuñ jàppale bi njëkk kenn jàppale wuñu par benn benn ñooy jàppale par ñaar ñaar comprendre nga kon bu ñu indi suñu yoon dëgg la ñii yàlla ñii yàlla moo ñu boole ak ñoom ñii ñu ñoo tax ñu nekk fi mais am loo xamante ni dafa jaaduwul wala dëgg la ma yow mbër mi su la ñaanee may ko ba affaire passé après boo bëggee récupérer élément nga récupérer ko mais boo gisee violence ci lamb ji ñu dimbalante xam ne taxu ñoo ñu a jóg ñun ay doomu caare la ñu waaw ah, mën nañoo xam Yougo euh, problème bi nan la demee non problème man nan la demee dama jekk rek gis gis ko mais lii rafetul image bi rafetul parce que quel que soit Alpha mbër xam nga suñu rakk la ñu indi ko kon suñu koy indee fii ak lu mën a xew rek ñu la ñoom ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi na rafet maanaam dafa war a rafet daal xam nga sama doom dafay bëre muy tigoo xam nga ma bàyyi sama lépp ma ñëw comme a ngi fi wax ak yow mais dama ne waa Thiaroye nañu jàppale ñànka maa ngi lay nuyu waaw maa ngi lay fay nga jug mbooloo mépp topp sa ginnaaw jàng dëgg la waaw di gërëm Ousin mi sama doomu ndey doonoo yàgg ay at la nag mu doon ko gore aw ma dara mu tuddee ma drapeau ma koy gërëm di ko sant di gërëm senegal yëpp di gërëm géejawaay bu ma jógee di gërëm sama daaba yi di gërëm ñëpp ñu ma àndal maa ngi leen di gërëm di leen sant di wax ni tamit ñun si dëkk bi lañ dëkk ñun simbukat yi si dëkk bi lan dëkk état daa war a xam ne si dëkk bi lañ dëkk ndax ñun lu nu manqué daa bari mbëri gënuñu médecins yi gënuñu ñeneen ak ñeneen gënuñu doole bu a am kenn amu ko tamit si dëkk bi danoo war a xam ne si dëkk bi lan dëkk culture mooy première culture mooy simb te simb dañ ko war a valider ñu ni may autorisation ñuy simb ndax suñu liggéey la bëgg ñu ko nu wutal liggéey mais nan wàcce autorisation yi ñuy simb loolu mooy yoon ndax si dëkk bi lan dëkk suñu ñu gis ne grand lion yëpp a ngi sa ginnaaw grand lion yëpp a ngi takk takk ñoom ñëpp nekk sa kanam tey lan la non kontaan rek ndax seen bis seen yëf la yëfu fédération des faux lions la man ma nekk seen président ñu ànd ak man gunge ma des na de ñu xaaj bi sax ñëwuñu ndax ñenn dama leen jéggal na leen toog leen ñenn ñu solowuñ ñu mobiliser wu doole ndax mbooloo mooy doole ñu def benn say daal di ñëw su fekk sunu doomu nday bi Ousin di ko sant di ko gërëm maa moom ay at ba dara dul dara lan commencé ànd ba tey mu am yëg-yëg pour tuddee ma drapeau ma koy gërëm di ko sant. Ouzin drapeau bi nga jël tuddee ko Grand Lion yi. dëgg la maa ngi leen nuyu leen ziar comme ni ni ko ñànk waxee kii sama xarit wu yàgg la muy def li nga xamante ni mooy ar li muy def nii culture la ma jël ko tuddee ko drapeau bi pour wane ko parce que ñànk nekkul ku ñuy wane sax dañ mais dañ ko wane dañ ko bëgg wane pour autorité yi gën a xam maanaam li nga xamante ni mooy liggéeyam. ñànk mi ngi ci mbër yi ñànk mi ngi ci association yi ñànk mi ngi ci politiciens yi képp ko am activité ñànk dina la dina ñëw defal la simb pour nga am recette pour nga mën a jàppale sa kees loolu nag bu ko dee def parce que man yàgg naa tëgg ay mbër ñi naan ma ñànk moom mooy simbal pour ma mën a am recette bu mu mën a préparer sama combat kii yàgg nañu bi ñu dalee ànd ëpp na 20 ans ma ne ko nag tey dina fexe le 17 bii nii ñu fexe pour nee la journée bi maanaam mën a wax ci télé bi mën a wax ci presse bi mën a wax ci li nga xamante ne mooy site en ligne pour état Sénégal maa ngi lancé benn défi pour ñu jàppale ki nga xamante ne mooy Ndianka le grand faux lion yor association nationale. kon tey ni mu ko waxee nii na ko nit ñi jàppale noonu mooy nañu fexe ba leen joxal yombalal autorisation yi. gis nañu simbkat yi fu ñu fu ñu taxaw di simb ñu tas simb sa. te ku ne xam na ne depuis Sadio Ndiaye ba tey muy bigal nit ñi si simb. ñun ñii nekk xale ba tey boobu ba léegi simb la lan moo tax nangu ñu leen a may autorisation. voilà autorisation bi la ñuy demandé ki koy demandé mooy président la république di ko demandé ministre yi di ko demandé préfet yi ne leen wax ni kat fonds Lions yi bu ñu amatee ci quartier yi di organiser ay simb nañ leen di nañ leen di yombale li nga xam te ne mooy autorisation bi parce que li ñuy def dañuy dañuy bëggal xel dañuy bëggal xale yi di dindi stress parce que boo xoolee tey li ñu solo nii vraiment sol seen i euh, karaw maanaam ñëw di def aar vraiment lii nekk na loo xamante ni dañ leen ci war a jàppale bu baax a baax a baax kon tey vraiment maa ngi lancé appel encore ne état Sénégal nañ leen ñaan ñànk mii ak képp kuy faux lion fu mu amati simb nañ leen nañ leen yombalal li nga xam te ne mooy autorisation yi. waaw waaw sama xel dem na si Sadio Ndiaye. gaynde noonu. waay déggal loolu waay. kii gi gi gidas gidas Buraya Kane Guidiack Thiaroye Guidiack mbas bu daaru moo ñu féetee moo ñu la ñu jàkkaar lool Zal Gounass moo ñu woon ginnaaw mbas bu daaru arrière na mbas bu daaru ak Zal Gounass mbas bu daaru ak Zal Gounass mbës bu daaru ak Zal Gounass benn avertissement mbës bu daaru ak Zal Gounass Zal Gounass moo ñu wan ginnaaw mbës bu daaru moo ñu wan kinam moom lañu ñu jàkkaar lool mbës bu daaru la ñu jàkkaar lool mbokk yi bu daaru ak Zal Gounass mbës bu daaru ak Zal Gunaas mbës ak Zal Gunaas mbës mbës bu daaru Zal mbokk yi waa Zal moom fu mu jëm waxtaan na ak ay zizam moo looy sànni loxo mbas ah eh eh lii xamee wu arbitre arbitre arbitre avant arbitre du soufflé dafa ñëw naa ma lii ak lii arbitre bi mbër bi la àndal man du ma ñëw di jaxase sama combat di ko saax saaxee. dégg nga arbitre nan laa nekk man eh eh man kenn du ma parax paraxee. comprendre man kenn voilà fay boobu ñu xam ko ma damaa wàcc sama combat sonn kenn du ma parax paraxee. arbitre ñoo yàq sama lamb man avant may bëre nii arbitre ñëw di wax ak man lépp man maa ngi comprendre. loolu loolu eh, loolu jëru ko. diggante xayaa moom la ñu jàkkaarloo Boy Faye dóor na Boy Faye ak xayaa Boy Faye ak xayaa xayaa Boy Faye Boy Faye 2 ak xayaa Boy Faye ak Khaya Boy Faye écurie Fass Benno la waree ñëw Khaya écurie Rock Énergie Khaya moo gën a xees booy fay moo ñuul noonu deux Khaya ak Boy Faye Khaya ak Boy Faye ndaysaan tàcc tàcc combat jum gerte xayaa booy fay booy fay ngi door ku baax xayaa ngi fayu xayaa ngi fayu xayaa ngi ci gaño gi xayaa dina ko rey xayaa dina ko rey xayaa rëpp na xayaa daanu na xayaa wax booy fay daan na booy ñoom ñaari ngi waxtaan booy Faye daan na Xaya Sirukum daje booy Faye daan na Xaya Boy na Xaya alhamdulilah mais ñëwal ci bëre bi. waaw dama am ne kii lu may woo ci nekkul xeex moo ko indi moo tax ma dox ci kawam waaw lamb ji mënoon naa ne nag combat bi est xam nga ne une semaine laa ko jël. doo nga jël ko dama gëm sama bopp xam ne ma yor sama idole sama bopp. barke alxuraan kii laa tuddee sama bopp kii lu muy bëre moo ma neex kii mooy sama deuxième bilaay man rek yow rek laa tax bi ngay ñëw mbapatu Medina bi mbay yaa feene bi ngay finaalu mbatal gi lépp ba si laa la toppee ba lay fore lan la jàppale wooyee jàppale nañ la yow jaw far yàlla ko yàlla ko def at yu bëri maa ngi kontaan si ñëpp nag kontaan naa si waa écurie Fass yëpp yëpp yëpp yëpp maa ngi kontaan si ñoom di waa kontaan waa Jilaax yëpp dañ maa jàppale waa Jilaax surtout école Jilaax ma ko ñoom Pape Sène ah ñoom Ousmane Sarr ñoom labay sama boy bi dëkk ba la jóge Omar Sarr dëkk ba la jóge booy booy def lu doon Alioune Tine mi du ma xoolal dafa sonn ci combat bi. léegi nag mu ngi wane ne ko yëngal Yanka président national international des folios du Sénégal. moo dox si diggante Thiandoum 2 ak Moustique muy école de lutte Djibouti léegi nag ay ca ndeysaan càmm càndum càndum a ngi noonu adversaire am dafa blessé ci dox ci li nga xam ne moom moo amoon fii ci arène nationale càndum a ngi noonu noonu koy seet waa léegi moom càndum jaru ngeen koy seet ndax jar na seet jox leen ko victoire am rek mu dem ndax adversaire am bi dafa mujj blessé Moustique càndum dox ci diggante moom ak Moustique Thiandoum dafa mujj blessé Thiandoum dox ci diggante moom ak Moustik waaye yàlla def na Moustik dafa blessé ne nañ Thiandoum taxawel ne Thiandoum Thiandoum dox ci diggante moom ak Moustik càndum dox ci diggante moom ak musik ci diggante moom ak musik Thiandoum 2 ngi noonu taxaw dox ci diggante moom ak Moustique gis ngeen euh, problème li nga xam se ni moom moo amoon ci arène nationale euh, di problème yoo xam se ni wax dëgg yàlla di nekk loo xam ne day yàq làmb parce que làmb rawatina grand combat ku war a bëre grand combat dem ba nga xam si ni wax dëgg yàlla desoo lu dul sëgg nga am ak problème yi sa diggante ñoom ak force de l'ordre mi waaye gis ngeen mbokk yi li xew ci arène nationale gis ngeen li xew ci diggante Moustique ak force de l'ordre mi diggante li nga xam si moom moo am ci biir arène national mbokk yi gis ngeen euh, noonu la demee kon jox nañ victoire ki nga xam si moom mooy càndum jox nañ ko victoire moo ngi noonu di sujjoot di julli xaw lu muy julli julli bu amul njàpp